anil xamari walis weer wa wa fi yaminika nekk ni sa ndeyjoor maa loo xam ne yooxu nii dana doyluloo anil matari walis taw wa fii fu aadika nekk na ci sa xol anwaarun ay leer wa maarifatun aku xam yàlla wa xikmatun ak xikma wa hudan ak jub tux nii yooyu danañu doyluloo ani suburi walis téere ya mu ne sëñ bi sa leeru xarkanam dees ko gis di soxlaati weer sa tabut loxol ndeyjoor deesu ko gis di soxlaati taw sa leeru xol ak sa xam-xamu xol bi la yàlla dénk ak xekkam yi doy na sëkk ku ko am ku ko gis du soxlaati ay téere fa anta yow yaa ayyuhal mbakki yu yow ko jug mbàkke ki jaamihu ashtaatil fadaili yaay aji dajale way tasaarooy ngëneel ya baxrul xilmi te yaay géeju xam-xam wal asari ak addis dana ko yow day mbàkke mbàkke bi ngëneel yi tasaaroo woon ñu baax ña kee am ca lee kee am ca lee kee am ca lee yàlla la ko booleel nga boole yépp te ngay géeju xam-xam xam-xamu saahir ak baatin xawsul zamaani yaay xettalu jamono siraajul kawni yaay làmput mbindéef ruuxuhuma te yaay seen ruu ñoom ñaar xalifatullaahi te yaay xalifa bi yàlla fii badduwin ci àll wa fii xadarin ak ci taax yàllaal def ngay xettalu jamono di leerub monde bi di ruuxub mbindéef yi nga xam ne jamono jeeg li nekk ci jamono ji yaay seen ruu mooy ci yow la ñuy dundee yow la yàlla wutal nga wuute yoon tam ci kaw suuf ngay xalifa waa àll ak waa taax alxaarifu yaa aji xam ja alwasaru kay ab wéerukaay ibnul xaarifi kay doomi aji xam ja alwasari kadi wéerukaay ibnil xaarifi kay doomi aji xam ja alwasari kadi wéerukaay ibnil xaarifi ba tey kay doomi aji xam ja alwasari kadi wéerukaay da nga di ko yàlla may ak cër ci boppam ñu wéeru ci yow te ña nga bàyyi koo soqi koo ci ñoom it noonu lañ meloon ak taaxiru siyar yi yaay aji laab ji mbooti biir ibnu taaxiru siyar yi kay doomi aji laab ja ay mbooti biir ibnu taaxiru siyar yi koo koy di doomi aji laab ji ay mbooti biir ibnu taaxiru siyar yi koo koy di doomi aji laab ji ay mbooti biir al mubhidul kadari yaa aji soril ji nëx-nëx ibnul mubhidil kadari kay doomi aji soril ja nëx-nëx ibnul mubhidil kadari koo koy di doomi aji soril ja nëx-nëx ibnul mubhidil kadari koo koy di doomi aji soril ja nëx-nëx dana ko woon yaa laab yaa set wecc te ñi nga soqi ko ñëpp noonu lañ mel ngay koo xam ne doo gis ab taq-taq mbaa ab nëx-nëx mbaa ab lëndëm-lëndëm te dindiwoo ko mu set te it ña nga soqi ko ñëpp noonu la ñu mel azahidu yaa aji dëddu ja alxaabidu kay aji jaamu alxaali kay aji yëkkatiku makaanatuhu dara jaam xindal illaahi fa buur ba wax xindal jinni ak fa jinne yi wal bashari ak doomi aadama yi ñu koy wax mbindeef waaye mooy doomi aadama yi baxrul wilaayati yaay géejug wilaaya misbaaxu sharihati yaay làmpub shariha yam booxul xaqaayiqi yaay ballukaayu xaqaayiq ya dëgg-dëgg mbir ya xay nu sirri yaay bëtub secret wal xabari ak xabar loolu yàlla may nga boole tëddu ak saxoo jaamu yàlla yàlla yëkk sa daraja ba ñëpp xam ko nit ak jinneeg ñëpp maase ci xam ko yaay géejug wilaaya yaay làmpub shariha yaay ballukaayu xaqiqa yow yaay ballal secret biir ak secret biti xoo moom aljawaadu mooy tabba allësi ba nga xam ne azra xeebloona binaa idi yi ca mayam nga aljam mi ngay aji bari alxatiir nga aji foor dawaa man ci lu sax xeebloona kulla musdaxirin jëpp aji fuur sëriñ bi mooy ku tabe ki nga xamee ne tax na ñu fàtte képp ku tabe ak lépp li ndaa misaale bari may ni ki géej mbaa dex mbaa taw li ndaa misaale bari may rek sëñ bi rusloo na loola gàcceel na loola laa xay ba déet benn xeetu sikk fii nekk ci moom si waa taqwaa ndare ragal yàlla wa maarifatin aku xam yàlla wa kawnihi ak ndare nekkam nga waahibal alaafi di aji may ay junni li zumari ñeel kuréel ya bu ne amul benn sikk bu lay day mel ne kon bu lay joojee moom sikk la waaye loolu la ñuy wax takiidul maddaxi bi ma yushbihu dam fadle tagg lu nuru aw ngànj ndax dana amul benn sikk bu may ragal yàlla ak xam yàlla ak di may mbooloo yi ay junni junni junni saafin aji seetlu la xalaa iquhoo jikkoom ya daafin aji lëw la xadaa iquhoo tookaram ya lay sat dawaa iquhoo déet ay musibaam tuxsha deefi leen ragal magal xumari diiru dund ga yàllaa ko may jikko ji sell muy koo xam ne njëriñam moom ku ne da nga ci am te nag kenn du ragal aw ay bàyyi ko ci moom jëm si ci yow ku nekk xam nga ne moom njëriñam mooy ñëw ci yow waaye aw ay moom du bàyyi ko ci moom mukk jëm si ci yow xayaaw foo kersaam nga xayaawun kersa la li jëm yi nga xaar mi ne ñeen mboolu mbindéef yi nga xam ne dafa nekkoon xayaawun nga jàng xayaa rek nag madd ko ngir way wi lam yax tikk mësta xotti asitra sutura yow man ci benn bis xan dawil xasari walis waroom fakkastalu ya ñooy fakkastalu mooy ñooy def lu jaaduwut kersa gi ko yàlla dénk tax na ñëpp la ëmbal kersa mësta xoot sutura kenn kenn mësta def lu lu wata def ba tax mu xotti suturaam la neex ka annahu daanaka moom anasul mooy anas fii xidmatin ci liggéeyal yonante bi xabasun ak niit la ak leer la goo xam ne maashabahu raxu ko dana suñ benn tilim tilim fi sirri ci lu nëbbu wal jahri ak ci lu bir wal jahri moo fi nekk ci way wi daa mel ne Anas ibn Malik ci liggéeyal yonante bi yàlla def ko muy ab làmp boo xam ne bu leer la bu set wecc amul dara lu koy rax di ko tey mën a leeral du ci biir du ci biti xaw mun ndimbal la li mun tashrin ñeel aji sàkku ndimbal ruuxun ruu la li mu ko tashrin ñeel aji gàttañlu rawxun yërmande la kon li mu ko tashrin ñeel aji gàttañlu waaye yax bi ma yor moom ruuxun moo fi nekk jàbbarun ak jàng la maanaam ak defaraat la li mun kasirin ñeel aji damm yusrun te ak yomb la li mun xasirin ñeel aji jafe ne sëriñ bi ku bëgg ndimbal ba ak si ci moom am nga ndimbal ba noppi koo xam ne mën laa joti mooy sa yërmande nga daal di mën a joti ku damoon boo dikkee mu faj la ku ñàkkoon boo dikkee mu jox la ba nga am in kunta ndem nekk nga daa harabin di boroomuk daw aw kunta wala nga nekk daa raxabin di boroomuk xemem yam minhu jublu ko daa adabin mbir ngay boroom teggiin te aman kon nga wóolu maxa zafari ànd ak tuufu wa amee loo ragal mbaa am loo bëgg ngay dem ci sëriñ bi ànd war ak ci teggiin soo demee rek bu dee loo ragaloon dal nga cee mucc bu dee loo bëggoon nanga ko dal di am ak rim kaawteefu tedd nga bisi ci moom min wàlli yin ci wàlli yu xudwatin ku di aw royteef sanatin ku di aw wéerukaay lam yu buxi koog de salut chey an dara minel xal yaay ci kawe wala ci ay mbir yu kawe wala mu yasarte bàyyiwu ko ne maa ngi yéem teddug wàlli yi nga xam ne royukaay la wéerukaay la te lu bokk ci xeetu kawe moom yàllaa ko jox lépp lépp ba bàyyiwul dara dara lu mu ko ci joxut laa tabuxi bul sàkku maa xistali fee yaa ngi dund min ahli hulaa ci ñooñ kawe badalan genn wecc bi ci sëriñ bi fa maa huwa déet moom illaa xarqu muqtadirin ndara muy xotti baaxu yàlla mi aji sar kàttan nee na ñu baax ñi bari nañ waaye bul ci jéeméwut kenn na daa koy weccee sëriñ bi ndax moom xotti baax la boo xam ne daa soob yàlla rek mu wàcce ko wa ahdi te na nga àddiyaal tey ba sanaa in teyu tagg bi dawaal mi ci ak sax la woo ñeel ko fa woo moom xarin aj yeyoo la bi tey bi sanaa in ci teyu tagg bi dawaal mi ci sax boo ko jox àddiya tagg ñu rafet rafet te bañ a bàyyi ndax moom yeyoo na saa yu nekk nga di ko jox àddiya tagg te bañ a bàyyi wa qaala aydan min bahril waafir laa jaala yàlla ba mu deñ daa xawin di boromub cër waafirin bu di aji lëw ba tey sëñ boobu waxaat na daaja daajub baxri bi ñu wax al waafir yàlla na ko yàlla doole defal cër bu duuna duun bu lëw a lëw ilaama ba kañ alaama ana ci lan salma yow salma te jur yi na da nga tong waaye da nga jàmb muqiman aji sax fil hawaa ci cofeel ga al xobri yi ngay ko jóg xobri yi xiinan diir bu yàgg yàgg day waxante salmaane ko lu tax ana lu waral ku la bëgg lool ba tëyatu ko cofeelam mel ne cofeelu banu xobrata ci yow ku mel ne kooku te mooy man nga di ko jàmb rek ba kañ foo bëgg a yemale jàmbu gi ak lu ko waral zaraxti jinga fi qalbihi ci xolam bustaana shawqin toolub cofeel wala zaraxti bay nga bi qalbihi ci xolam bustaana shawqin toolub cofeel falim adwayti ana lu tax nga laxal alxusoona carya bil hajri ci jàmbu dangaa ji ci xolam cofeel gu rëy rëy mu mel ne cofeel ga nekk ci xolam garab la bu ci sax gu naat gu amoon ay car du tax nag nga di ko jàmbu ba mel ne garab googee dafa lax car ya lax fa xel laa jutti analutee nga tabe bi suqyaa ci suuxat li sarxin ñel mbay xadaa moom xëy na maa ul misaal yi ndoxum jokkoonte ga maa ngi leen di ndox mu neex la xoo ñeel ko bi nga jiyee garabu cofeel googu ci xolam lu tee nga suuxat ko te suuxat gi mooy jokkoonteeg moom jàpp xarit ga lu tee nga defoon loolu faxas bu ki doy na lu sëkk tam lu baree bari fatakti rey nga bi sax mi laxasin ci fett goo xam ne ab gendiku la axaa xisqin boroomu cofeel faxal laa taraxaw yi na anal tee nga jàjju mu ne ko doy na sëkk nag bu yoosu fi nga yem ndax yow sa bët yi lu bari bari nga ne ko jàkk waaju la sopp bu jekki-jekk mel dafa daanu tàggoog bakkanam loolu nag war nga koo bàyyi fakam lu bari lii ñeel na ma min xadoolin ci ak yeddaa kon laahin bu aj xut maanaam buy aji yedde fii ki ci yow walakin waaye laa utiixu duma topp allah imina way yedd ña baraana ku may yedd naa ma waa ji bàyyi salmaa mi fii nga ci ak gët ëpp na mu ne waaye du ma leen déglu sax fala asloo duma miis dawaa man ci lu sax xan ki weli si yow illaa bi madihi cheikh ndara ci tagg sëriñ bi rawsil muslimina koy xettalu jullit ñi xam naa daal la ma defee ne mooy tax ma mis la fàtte la mooy nag sama xel dem ci sëriñ bi ma di ko tagg nag su boobaa de loolu moom dana ma fàtte loolu lépp lépp foofu lay tàmbalee nag tagg sëriñ bi siraajil ufqi kay làmpub gox ba ngaysil xalqi kay tawub mbindeef yi turan boole seen imaamil awliya kay njiital wàliya ilman ci xam-xam wa diinan ak ci diine mooy làmp bi yàlla samp ci gox bi muy xeet li mu fi ni ab taw di njiitul wàll yi gën leen ëpp leen xam-xam ak diine foo moom al ustaadu mooy ustaas ba ahmadu te mooy ahmad man ka nga xam ne nadaahu tabam nga alhamdulillahi dundu yàlla mooy sama ngiñ xadd faaqa kawe na almuseena niir ya nee na mooy seen tuubaa mi ñuy wax ahmadu bamba mi koo xam ne ay mayam daa bare bari ba gàcceel niiri taw yi laxoo ñel na ko wajjfoon kanam ahaara kon abal na albadra weer wa xusnan ab taar wa xulxun ak jikko xadd ahaara joo xam ne abal na an nawra tóortóor ya lii nan ak nooy yàllaa ko defal xar kanam boo xam ne na mu rafete ak na mu taaroo da ngay wax ne moo may weer wi leeram geeg taaram bi jikkoom rafet lool ba nga wax ne moo gën a rafet tóor tóor gën koo sedd xol wa ba asun aku njàmbaar tastaxiitu kook day muslu al usdu gaynde ya min fu ci moom bi aajaamin ci ay gott xidaaran ngir wattandiku an taxi na ñu al ko yàlla defal ko njàmbaar goo xam ne gaynde yi dañuy ñeme ñeme dañ koo ragal dañu dem di làqu ci seeni gott ndax ragal mu dal ci seen kaw waximmatuhoo te yitteem jarat diri na xalal aflaak ci kaw falag yi mooy dawukaayu biddi yi zoyalan ay mbicc yestal yinu dana nooyele bixaa ci yitte joojee alxaroona aji xoox ja aji bañ lay firi waaye mooy lu jafe rek yàlla may ko yitte ju kawe kawe joo xam ne mën nga ne bu doon jëm mu nga diri ay mbiccam ci kaw dawukaayu biddiw yeeg jant ak weer fa mu njëkk ku nekk faaxidan di aji ñàkk xay nan bët fa indi naka man raaytu gis naa malaa danaa sunu wérukaay bi yonti muy joxe alxoyoona bët ya mbaa nga ne fa may yekk ku nekk faaxidan di aji ñàkk xay nan kee soo ak seefi bay du yem nga firee ko yont yi muy joxe alxuyoona tànnee fi may yu sell ya kon mu ne ku bëgg a gis te amul bët maanaam ku bëgg a xam kumpa xam la umpale woon da ñëw ci sëriñ bi ku bëgg am la gën a foor ci alal muy wurus muy xaalis muy leneen dañëw rekk ci sëriñ bi yam yinan maa ngi ngiñ ngiñ laa yamiinu lool du fen di ànd yusraahu ci naka càmmooñam ba yusrun am koom la jàmm moom bari na wal yamiina danaa waat na it naka ndeyjoor ba alyumnu moo di barke wal yamina nga mel ne ku baamuwaat lee mu ne woon bi an na yusraahu nga mel ne ku baamuwaat fii wa bi an nal yamina al yumnu nee na maa ngi waat waat goo xam ne du tegg ku mukk ne càmmooñam lépp am koom la ndeyjooram lépp barke la xawaa laq na kafan téng yekku fu loolu day fekk al faqra ñàkk ga kafan ak fekk waraaxan ak teng loo xam ne raaxu foo yërmandeem alwaa màndal na almadina kañu diisal ciy bor loxoom bi loxo la loo xam ne lu waay ñàkk-ñàkk boo dikkee bu la ko tàllalee nga tàggoo ñàkk tengam lii tengal yërmande la loo xam ne lu waay diis diis a ki bor boo dikkee tàggoo ki bor waliyun waliyu la aarif muy aji xam xutbun te xutbu la wa xawsun te xettal la mu xiis muy aji xettalee jaamihun te aji boole la jamaxa koog boole na alfunoona mboolem xeeti fànn yi wali la yoo xam ne yàllaa ko xamal boppam muy xutbu di xettali ñëpp dajale mboolem xeeti fànn yëpp xadd an yaa ñi lottal na ma waaye boo jàpp rek dañu maas xadd ji xadda ndax way wi xadda yaa ñi lottal na ma imtidaaxu ko sag tagg yaa malaadi yow sama wéerukaay bi kama an yaa naka mu lottale jamihal maadihiina mboolem way tagg ña jéem naa laa tagg te yàlla tax waaye xam naa ne rek tële naa te loolu njëkkee ma ko bari xaana ñu lay bëgg a tagg tagg wu yàlla ci yow te mënuñu ko foofu yàlla na nga doolee may lii ñeel ma min na daak ci sa tab al jàmmi gi aji bari faydan ak baawaan xalaa xajalin ànd ak gaaw ak di koo xam ne naa fayee bi ci ci moom at bi yoon bor ya wa axtaasu te may làq alxinaa koom ma daw man ci lu sax wa axyaa te may dund xayaatan dund xadd tasurbat baraanam bégloo al muminin way gëm ña sëñ bi sama yi bari yi may ma ci lu bare bari loo xam ne ci laay tàggoo ki bor ci laay tàggoo ku ñàkk woomal koom moo xam ne du jeexati sëñ bi may ma dund goo xam ne ku gëm yàlla ku ne dana dëkk ci dund gu mel noonu wa azhir yàlla na nga feeñal bii ci man karamaatin ay karamaat ay raaman yu di bay màgg tàkkoonu ee dana ñu nekk xu den di ak njub la naa ñeenu nuuram tey leer mu biinam guddi aji biral sëñ bi maynu ay xar baax yu bare bari yu rëy rëy yoo xam ne dañu dolli ak gindiku dinu dolli leer jasaaka yàlla na dollee fay allahu yàlla xanaa walis nu kul waxtin ci bépp waxtu jasa an pay xat yu xirru ko baraana mu serale bi ci moom alxuyoona badiya wa adaamata yàlla na saxal arrida ngërëm la arrida wal fadla ak ngëmeel la daw man ci lu sax aleykum ci yéen mu xëyyan muy aju dundale bikum ci yéen xoroonan ay maasi maas bikum moo nag mooy nekk ci way wi dafa daan li xasida gi ñaan sëriñ bi yàlla rek ko mën a fay yàlla fay ko fay gu sedd xolam dolli koo gërëm ngërëm lu sax dolli koy ngëneel dolli koo taw fi xale ci dundal ay xeeti xeeti xeet ci doomi aadama yi di wéy maanaam dolli koo may ay maasi maas ay xeeti xeet ci ay téeméeri ati at yi ñëw di ñëw yàlla dekkalaate ci moom sëriñ bi ña deewoon wett ci ñàkk xam seen boroom ak rek sax ci lu yàlla gërëmut yàlla may sëñ bi nag mu wéy nag di xeet li ñu mel noonu rek di wéy di wéy rek walahu aydan uhdi maa ngi jubale salaamun ab nuyoo yafuuqu dëb dana kawe almisk misk nashran ci xet wal xusaama ak gàncax xusaama ilaa ustaadina jëm ci suñu ustaas bi de maa ngi jëmale nuyoo bu rafet bu neex boo xam ne mooy dàq gët mooy dàq xetu ceeb nuyoo boobu laay jëmale ci suñu sëriñ bi wayaxloo te muy kawe albadara woor wa xus nañ ci ab taar foofu moom yësuri dana xeebloo bi sirfil xamri ci aji selli sàngara mun bay ñun nadaama ci diggante way naanaa la ñaa maa ngi jëmal sëriñ bi nuyoo boo xam ne moo gën a leer gën a rafet weer nuyoo bu neex boo xam ne ña xam sàngara te bëgg ko buñ téemee sàngara su sell su neex nañu mel ci ñoom nuyoo boo koy dàq xat of sii danaa siiwal assalaamu nuyoo ba ilaa ustaadina jëm ci sunu sëriñ bi talqil mu hayya kay aji tàlli ab xar kanam raxi bi sadri ki aji yaatu ab dënn nee na maa ngi doolee yëkkati ab nuyoo jëm ci sunu sëriñ bi nga xam ne yàllaa ko defal xar kanam bu tàlli ak dënn bu yaatoo yaatu ay lu mu ci nam ahmada mooy ahmad raw si raw si naa mii sunu xettal al qutbi kay qutbu al murabbi kay aji tarbiya al muraqi kay aji tarqiya al kaashifi kay aji muri ak dëhëra ci jëpp jamono ak balaama la nëm ga wa muhyil xalqi tey aji dekkal mbindeefi moo yéexin tey aji lottal leen bi joodin ci ak tab wa asdaqihim te gën jaar dëgg ci ñoom kalaaman ci wax bila tulyaa ci lu dul seetee ñu ne Ahmadou Bamba bi nga xam ne yàllaa ko def xutbu di xawsu muy boole tarbiya ka tarxiya mu tàggale lëndëm de duñ gisat lëndëm moo dekkalaat mbindeef yi gannaaw bañ deexee ci umpale yàlla mu indi nag tàgg goo xam ne may yoo xam ne tombal na ñëpp mane na mbindeef yi ñëpp moo ci gën a dëggu ay wax jarul nga naa kee ak kaa jarul xëy ngay seetee naa kee ak kaa ñëpp rek moo gën a dëggu ci wax ak jëf wa asfaahum te gën jaa sell seen wa awfaahum te gën jaa matale ci ñoom wa xoodan ci ay kóllëre wa alaahum te gën jaa kawe seen maqaaman ci maqaama lagal moolaa fa buur ba wa atqaahum te gën jaa ragal yàlla ci ñoom wa anqaahum te gën jaa set ci ñoom jamihan mboole seen wa ardaahum te gën jaa gërëm seen ka xidmati yi ci liggéeyalam assalaama ko mucc ci ayib wa alamihim te gën a xam ci ñoom wa akramihim te gën a tedd ci ñoom sarixan ci lu wóor wa ajyadihim te gën a rafet ci ñoom wa ajwadihim te gën a kabe ci ñoom xamaaman ci aw niir wa ahsanihim te gën a rafet ci ñoom maxan boole seen xalqan ci bind wa xulqan ak ci jikko wa akmalihim te gën a mat ci ñoom wa ajmalihim te gën a rafet ci ñoom nizaaman ci am nos wa ambatihim te gën a sax ci ñoom wa asbatihim te gën a dëgër ci ñoom la neexee ni gën a sax ci ñoom ba tey fi xaaran ci ndam wa arhabihim te gën jaa amuk tëy ci ñoom wa awhabihim te gën jaa maye seen maraaman càkkuteef su la ne ñu baax ñi moo ci gën a sell gën cee matal wala re ñoom ñëpp moo leen ëpp maqaamu fa yàlla gën leen ragal yàlla gën leen a set wecc gën leen a gërëm loo yàlla yonante bi ci liggéeyam bu sell bu bari ëpp leen xam-xam gën leen a tedd gën leen a rafet gën leen a tabe jikko ak ak bind niñ ci mel kenn du ko ci fekk matu biir it ak rafetu biir ak rafetu nos yépp moo ci raw ëpp ci ndam ñépp gën ci am ak weeru ci ko gis wekk ko ngir yàlla gën ci mën a maye pajug aajo fi saasay saasa radaa xëy na fardan di kenn xëy bam man ku di ab xaayaan xayra xutubin tey ngeen ci ab xutubu imaaman tey ilimaan sayidan tey ab sang nadd ban tey aji baax xumaaman tey ab sang ba tey kariman te aji tedd joo xam ne laa yu xaakaa deful nuróonteeg moom fil makaarimi ci teraanga ya wala yu saamaate deful yëkkatikonteeg moom fi kasbil mahamidi ci fàggu cantaange ya kenn la koo xam ne dafa mel ne géej ci tabe di xutubu boo xam ne moo gën ci xutubu yi di aw royteefu boo xam ne royteefu ñëpp la di ko tedd koo xam ne kenn mënta nuróonteeg moom ci teraanga di ko kawe koo xam ne kenn mënta sutanteeg moom ci fàggu yee taxa jëm ci kaw ak yee tax am cantu yàlla ak yonante bi shahirante aji siiw fi sama ci asamaan wal ardi ak suuf badarantey weer mu niranu di aji leeral waabilantey waame axyaa wow bindal na al anaamu mbindeef yi ñenn ñëpp ko xam ci asamaan ak suuf mel ne weer woo xam ne day leeral lëndëm di waame woo xam ne day sotti di dundalaat doomi aadama yi mel ne ku deexoon yaraa dana gis taaxaa taaxaa xiyaanan ci ak jàkkaarloo ku la waqatin ci yëpp waxtu fa yoo lii itam koy méngale almaraam xiba xemmem téef ya wala maraama ak càkku téef la saa yu nekk mi ngi jàkkaarloo yonante bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bu ko defee nag mu di ko jox lépp luy xemmem téefam ak lépp luy bëgg-bëggam fa sallaa yàlla na dal tedd nga suma sallama topp yàlla dollee wóolu suma sallama topp yàlla na dolli ak wóolu ku la waxat ci biir waxtu àllahi ci yonante bi allahu yàlla wal xaaf yi ak aji xentu ja maanaam koy topp ci yonante bi dawaa mën ci lu sax wa arda te yàlla na gërëmloo cheyxanaa suñ sëriñ bi irda ak muxunin gërëmloo aji doyluloo karimin ku di aji tedd waasihin ku di aji woomal wala ku aji yaatal yoo lii kook dana yëkkati al maqaama maqaama wa axtaani te yàlla na ma joxe bi ci dara jaam su uli sama aajo wala su uli sama laaj waxaa ji sama aajo sarihan ci lu gaaw doona kaddin ci lu amul benn coono wasalaama ako mucc dafa daaneele xasida gi ñaan yàlla mu saxoo dolli teraanga ak jàmm yonante bi ak képp ku jéem xeñtu fa mu awoon te dolli ngërëm sëriñ bi moom mi nga xamee ne moo doyal te ku ko soob mu jox la ba nga doyal yàlla dolli sëriñ bi ngërëm doolu la yëkkati maqaamam te man mii nga xam ne maa koy tagg nii mu may ma ci daraje sëriñ bi aaju ju faju fi saasi saasa ci lu am tak coono te boole ca mucc ak jàmm walahu aydan yaa saadatan yéen ay sang amruhum nañ seen mbir shura ak diisonte la min baynihim seen diggante wal mun fiqoona te ñu dimbale jusaafan ab jàmm